waaw dama ñëwoon ziare si sëriñ bi suñu xalif général bi yal na fi yàgg te wér yal na am ngërëmal sëriñ Touba <laughs> bés bu màggal la màggal gi ñun ñëpp xam nga ni namu lislaam la euh, kon nag euh, <coughs> euh, farata la yaa jàpp naa ci ñun ñu fi ñëw ak bu nekk di ci bokk di ziare sëriñ bi di jaarale suñu nuyoo ci jullit yëpp ak taalibe murid yëpp. ci bés bi leen ndokkale tamit euh, parce que bés bu màgg la sëriñ bi ne nañ ci cant yàlla nañ ko cantal yàlla euh, kon nag loolu moo waral suñu teewaay fii ak suñu délégation mouvement tekki euh, di ñëpp vraiment ci kontaan lool lool lool lool gis nañ ni mi ngi màgg at bu nekk man yàgg naa di wax ne dafa war a nekk une journée de l'Afrique su ma nekkee président de la République dossier bi dinaa ko yóbbu commission de l'Union africaine parce que ndamu nit ku ñuul la tamit sëriñ bi nee na nit ku ñuul der ñuul mën naa mën a ñu ci lislaam te wane na ko euh, ndam la tamit ci nit ku ñuul euh, loolu moo tax man ma jàpp ne lu rëy la euh, moom mooy mooy suñu tànk fii comme ni ma leen ko waxee rek yàgg naa di wax ne pour ñun waaye mouvement tekki këru diine yi du ñuy ay citoyen ordinaire ay institution sociale ay kuréel yoo xam ne ne peuple bi ci boppam moo ko bëggal boppam ñoo ko fi taxawal di ko di ci liggéey di ko jàppale di leen ci liggéey euh, muy jëm kanam kon nag loolu dafa war am place ci république bi loolu la ñu gëm euh, lool moom bokk na tamit suñu programme politique. Ah, ñun fukk ak ñaar nañu Khalifa Ababacar bokk na ci euh, léegi fukk ak ñaar nañu candidat à la présidentielle te du ñun kese front de résistance nationale maa ngi ci biir mu xool dossier bi jàpp naa ne dinañ dinañ ci bokk ak yeneen société civile fu ñu toll nii tembe Macky Sall mënul. léegi mu wàcc liggéey bàyyi liggéey gi laa bëgg a wax ah, njiitu njiitu Sénégal février 2019 ah, warul ci euh, diir bu gàtt boobu ne day signé contrat boo xam ne daf ñuy engagé sur vingt vingt cinq ans xel nangu ko ah, ñaareel bi euh, affaire bi euh, moom moo ko wax mi ci constitution bi suñu richesse minière yi fer bi ci la bokk peuple bi moo ko moom kon su peuple bi su ko moomee soo ci bëggee def dara da nga ci war a waxtaan ak peuple ak ndaw réew mi Euh, ñun nekk assemblée nationale par exemple wala société civile wala expert sénégalais ñu ngi fi am na ñu diriger Taïba am nañ fay ingénieur des mines ak yooyu am na fay ingénieur polytechnicien ñoo ñëw war na ñoo mën a am kàddu parce que affaire bi du lu ndaw Kédougou la nekk moo gën a pauvre ci Sénégal muy benn ñaareel bi projet bi yàgg na man bu mu doon jàng école des min de Paris parce que ingénieur des mines là de l' de Paris man jot naa liggéey dans les mines souterraines en 3 kilomètres si suuf ci biir euh, li ñuy wax charbon këriñ ci laa doon liggéey fa laa commencé sama carrière professionnelle donc lu may wax dama ko xam ah euh, kon nag affaire bi yombul Sénégal yàgg na ci projet euh, gis ngeen Kumba sud africain yi ñëw nañ fi doxul mital indien bi ñëw na fi doxul yaa xëy soxlawul ñu ci ñu ci yàkkamti nañu gëstu xool fu intérêt Sénégal nekk parce que yëf yi gis ngeen ko Amérique ak ak Europe ñu ngi ci affaire u acier bi Turquie sax bokk na ci xuloo kon nag yi ma noonu su amee dañu ànd dañu ànd dañu war a ànd ak dal ak tey. waruñoo signé daal ah waruñu waruñoo signé jàpp waru droit sax mayu ko mu signé ko constitution bi mayu ko mu signé ko tey euh, ak ak Turquie muy benn dañ ko war a saytu xoolaat bu baax fu intérêt Sénégal nekk ci mbir bi loolu mooy suñu position. soxlawul yàkkamti nañu ànd dal ak tey Macky Sall ñu ngi jublu ci élection présidentielle ku gagné élection présidentielle man su ma ko gagné man am naa ci. Euh, nu ma koy sama gis-gis parce que man woote na industrialisation jàpp naa ne industrialisation moo mën a génne Sénégal ci lool moo mën a andi fi ay xëy pour xale yi Sénégal fu mu toll léegi dañ ci war a jublu sérieusement mbirum industrialisation te nag ah, su yàlla andee fii gaz naturel euh, ñu am fer war nañoo xool naka nañu mën a Sénégal man ci loolu laay jublu ci loolu laay liggéey bëgguma ñu del fer bi ko wanteer parce que affaire bi cinquante milliards de dollars la soo ko xoolee ba xool business bi loolu la kon ñoo yeewu suba di ko wanteer parce que Macky Sall dafa yakamti léegi xam na ne léegi mu mu pare liggéey bi mu bëgg a jël suñu Sénégal suñu intérêt yi di ko wanteer loolu mën dee am loolu moo tax ñu bind pétition bi ne ko waru koo signé te dañu continuer xeex bi ànd ak société ak tous les partis d' opposition ñoo xam ne ne intérêt Sénégal nañ jiite ah waaw c' est sûr kooku moom moom ànduma ci tey ànduma ci ëllëg parce que de façon euh, euh, euh, mbir bi man am naa ci expérience nee naa man damaa bëgg industrialiser Sénégal kon nag mënumaa dugg ci ay projet yoo xam ne àndul ak industrialisation du Sénégal mën ta nekk parce que du ñu jural dara liggéey xëy yuñ ciy wut duñ ko am mënuñu xam nga soo demee ICST indien yi ñoo fa nekk ñoom kese ñoo fay liggéey te ICS à un moment donné demoon na ba amu fa sax expatrié mais léegi indien yi rek ñoo fay liggéey alors quel est l'intérêt ñu ñuy former suñu doom yi ñu jàng ba pare am seen diplôme duñu mën a liggéey alors vraiment non koo bañ moom moo bañ waxtaan Macky Sall moom moo taxaw fële ne moom ñu ñëpp ay ñulaar nañu moom moo am xam-xam bi moom andi na PSE kon na ñëpp noppi da ku wax mu tëj la ci kaso bi en ñun jàpp nañ ne affaire ressource naturelle le ressource minérale mi ngi ci constitution moom moo ko ci bind peuple bee ko moom li peuple bi moo nag dañ koy diisoo loolu moo loolu loolu moo loolu la ñu gëm loolu mooy suñu doxalin bokk ni suñu dox